su fekkente ne ay xel yu bon rekk moo leen di sonal ñaan leen seen yeneen chrétien mu ñëw ñaanal leen woo leen seen beneen taalube maanaam chrétien ñu ñëw ñaanal leen te nañu ñaan ci kattanu Jésus te yéesu dina leen wàllu si te xel yu bon yooyu dinañu déggal Jésus ci ndimbalu xel mu sell kattanam dinañu aar ndax xel mu sell mi bu la aaree dara du la mënal dara ba dara booloo jeex